ci ñi liggéeyal Moustapha sallallahu alayhi wa sallam te loolu mi ma ko defee ci biir géej gi la ma ko defee. bokk na ci itam ca Gabon fa la ko suñu borom wane ahlu badr ndax boo fekk na ñi nga xam ne ñooy soldaar sonal nañ te suñu borom nag eh, am na foo xam ne bu fekkee mi ngi liggéeyaloo liggéeyaloo ab jaamam bu fa àggee rek faaw faaw mu wane xar ba ñoom ñu jàjju xam fi ñu war a yem fu mu doon moo tax Serigne Touba di wax ne. yassara lil muna la daa liibar wali man qaada lii ma haaba an kulli wali lii qaada ahl badrinil usuda man saxsaal waasiya wal xasuuda foofu la ko suñu borom defale ci biir Gabon kon Gabon mënees na ne bu fekkoon te ne liggéeyu Sëriñ Tuubaa bi dañuy wax ne li ñuy wax jawfal fara kon mooy Gabon jawfal fara liikun bikun saraban waccan masiré sa jawfal fara lil wara misal maharimi yoonu Gabon yi mooy loolu ci tukki Serigne Touba bi. demub Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul ci Gabon mooy firndeel cër bi ñëpp bëggoon te mu jafe lool te yonent bi sallallahu alayhi wa rafaatale ko ko muy ràmm aw xeetam te loolu mu ngi ci loxoy Xaadim Rasul. responsabilité chafaa maanaam xettali nit xettali mbooloo xettali ñi la yaakaar ngir yàlla loolu dafa nekk responsabilité bu diis boo xam ne. li wala fi naan nangam la muy jar lëf nangam lay jar ca ca ca ca ca mbaaw am na loo xam ne ku ko bëgg ku ne faw nga am loo def loolu bokk na ci li tax sëñ bi jaayante woon yoonu géej gi te mooy dem ba mën a xettali aw xeetam moo tax gis ngeen sax ba muy jeexal tukki ba dafa ñaan yàlla ne ko maa ngi dellu de yaa ngi may delloo ginnaaw bi liggéey bi matee waaye sama dellu gii na nekk texeeg sama xeet te su ëllëgee texe gi fii ci àddina ba noppi te su ëllëgee sawara buñ ko gis ijal ruju'i ila qawmi saadatana wala takfina yawma jami'il xalqi niraana kon day mel ne saada addina googu maanaam texik addina googu ak muccuk sawar ëllëg gi bokk na ci lii nga xam ne da koo jëlee ci tukki bi te loolu ñun ñii la gën a soxal ñu ñi ko yaakaar moo tax bi mu ñibbisee mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam may na ma ëllëg rammu googee ko yàlla jagleel ci biir yonent yëpp jox na ma ko su wa habali xayrul wara shafaa fii man ahabbahum wahum jamaa waaye ramm gi nag du xaar ba ëllëg mu koy def fii la koy tàmbalee. bu dee nag am na ci jaamu yàlla yi ku yaakaar gu rëyee nii taw féex gu yaatoo nii lépp tege ci say loxo loola nit ku ñuul di ko sagoo ci ummatu rasulullahi sallallahu alayhi wa ngir nasaraan bi wéer na ay ngànnaayam ba mu tëlee ci ay pexem Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul dong moo sañ a ay loxoom. ngir matale sart yooyu le nguuru ceddo yi jafe-jafe yi askan wi jànkoonteel indiwu ci tontu la gën nguuru tubaab bi moo yées encore indiwu ci tontu la gën ci liy soxla si askan wi ñi nga xam ne ñii ñooy wuyoo diine it taal jiyaar mu doon fitna bu rëy te indiwul tontu li gën ci li nga xam ne lii mooy li askan wi jànkoonteel muy ñetti tontu yoo nga xam ne yii amul benn bu ci indi li nga xam ne lii mooy li gën euh, Cheikh Ahmadou Bamba indi nag tontu boo nga xam ne bii dafa dëppoo ak jamono jooju muy leeral boo nga xam ne bii ci wàllu intellectuel ci wàllu gëstu ak jàng ak xeltu lu am solo la te duñ ci teg baaraam ci li ëpp dañu insister ci euh, tubaab bi lim ko yóbbu loolu lu am solo la gaa waaye gis ni mu comprendre situation bi indi nag tontu loo nga xam ne nii dafa saxal créer kuréel gu bees Euh, daara ju bees façon jàngalin bu bees muy tarbiya du rek dem daara jàng alxuraan man ay ay ay ay ay ay ay addis du woon loolu rek mokkal alxuraan xëy na am na loolu lu am solo la mais dafa am leneen loo xam dañ ko ci dugalaale maanaam defar nit ku bees ku ñuy wax aspirant muy murit jublu beneen jubluwaay bu bees yaakaar naa loolu lu am solo la ñu nag war nañ natt bu baax a baax loolu ndax jamono ji ñu nekk nii dafa dëpp dafa xellami ko ak jamono ji nga xam ne ji moom la ci Amadou Bamba dundoo mooy ni nguur yi nga xam ni ñoo jublu ngànk àddina euh, léeg-léeg dinañ lott ci indi saafara ci tawati doomu aadama yi euh, nguur yi nga xam ni ñoo nekk bitim réew lott nañ ci indi tontu ci li nga xam ne lii mooy soxlas waa réew mi ci wàllu culture ci wàllu diine ak ci wàllu koom-koom ak ci wàllu politique ak wàllu social te tontu li nga xam ne lii moom lañuy gis léegi mu gën a siiw ci euh, xibaar yi mooy ni islaam ni ñu ko dëppale ci jihaad muy jihaadu ngànnaay gis nañ ni ci jamonoy Cheikh Amadou Bamba gisoon nañ ay ay ay ay ay ay jeexitalam man la mën a indi comme limite ci jamono jooju donc tontu li nga xam ne lii moom la Cheikh Amadou Bamba tontu woon ci jamono. dafa nekk tontu loo xam ne ba léegi dafa nekk actualité ci jamono jii ndax li ñuy dund tey ci jamono jii dafa xellami lool ak jamono yooya. yàlla def na ma dem Libreville ci Gabon ñuy visiter place yi nga xam ni fa la sëriñ bi demoon dafa am lu ñu fa xaw a yéem daal mooy waax bi mu wàccoon dafa dend ak président de la république bu Gabon ñu dem ci mu dend ak dëkk bi nga xam ni bii. fa la doon defe ay euh, santaane yàlla ci dëkk dëkk boobu mu doon ab dëkk bu ndaw ci jamono yooyu tey jii boo fa demee di nga fa fekk ñu teg fa xabru ki nga xam ne mooy premier président Gabon ci dëkk boobu mu wàccoon fa mu fa njëkk a wàcc fa la fa foofu la nekkoon fa la fa la xëbru président premier président Gabon muy Léon Mba foofu la nekk man ba fa demee dama xool ñu bind ci xabru ba ni Léon Mba 1902 la judd 1902 mooy at mi fa sëriñ bi jóge donc ay waa waajuram xëy na nekkandoo nañ ak sëriñ bi ci biir dëkk boobee te boo seetoo boo jubloo penku ci xabru ba ci sa wàllu ndijoor jumaa ji gën a mag ci Libreville fa la nekk taqaloog moom daanaka à peu ay 5 moo dox seen diggante juróomi mètre moo dox seen diggante boo xoolee ca wàllu càmmoñ wa beneen jàkkaa nga fa nekk beneen jumaa nga fa nekk muy jumaa yi asante ñu séq ñoom ñaar xabru bi quartier boobu amul benn ambassade bu fa nekk ambassade yi ci yeneen quartier lañ nekk ci Libreville ba mu des nag ñaar ñaar ñooñu muy ambassade du France ak ambassade du Sénégal taqaloo ak xabru bi daanaka ki fa ñetteel mooy président de la république gu Gabon ak ñaari jumaa yi man ma ni ah ku am seetlu de man ngaa yéemu ci ni ñëpp ñi nga xam ne ñoo séqoon exilu Cheikh Amadou Bamba daje nañ tey ci benn quartier bi muy Sénégal France Gabon ak premier président Gabon Léon Mba nga xam ne mu ngi judd at mi nga xam ne fa la sëriñ bi jógee Gabon la judd tey xabroom ñaari jàkk ñaari jumaa wër ko dàmbe ko nii te bi fa sëriñ bii dem defe naa ay jullit waruñu fa woon a bari maanaam loolu daal seetlu naa ko man bi ma fa demee seetlu naa ko ci libre Libreville ma yaakaar ni xëy na lu am solo la loo xam ne war nañ cee mën a xalaat lu am solo ku nekk nag yaa xam noo koy jàngate bu dee yoonu géej gi moo doonoon jeexal ba faw mbirum Serigne Touba loolu de la mu jur mooy jant bu leer nañ bu tiim ñépp bu suñu borom yëkkati rasulilahi sallallahu alayhi di ko ndamoo waaye nit ñi rawatina ay taalibeem di ci sant ngir ab contrat bu doxoon digganteem ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi bu suñu borom teg ab signature te Cheikh Ahmadou Bamba xaadim rasool matalal na ko sëkk